sant ñëpp gërëm ñëpp nuyu ñëpp nuyu leen ci turu président de la république nuyu leen ci turu euh, madame ndey sali Diop dien nuyu leen ci sama tur ak ci turu ñi tok ñëpp te ñu parole ma ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci ñew bi ci taxaway bi ci yëg bi ak ci contribution bi tay ji euh, comme rek jigen ni dañ ko mës di wax Euh, jigéen moom xanaa lu mu gëmul waaye lu mu gëm daf ciy dem ba jeex te loolu moo leen dal waaye wéetu leen ci liggéey bi ndax tax wéetu leen dafa am seen ay cànniñ yoo xam ne que ni ñoom itam dañ ne duñu nekk en reste ndax àddina nag noonu la couche bi mën na jë jëli lii beneen couche bi ñëw dimbale ko ci loolu waaye loolu lu ñuy liggéey la avant loolu nag ngeen def liggéey ko avant ah, am gëm-gëm moo tax ngeen taxawee nii góor ñi tam taxawee nii. ay di gërëm ñëpp ku nekk loo mën def nga ko ba li ñu am ñu am ko euh, Tiwaawoon am na ñeneen aussi euh, yooyu yëpp dañ ko comptabiliser si suñu euh, kii comme ni mu amee Mbour comme ni mu amee Thiès yoo xam ne que dañ ko boole ñun ñëpp ñu ñu def ko waaye Kër Foko yi tëdduñu nelawuñu wax dëgg yàlla sonn nañu tout le monde a participé ku ne la nga am. la nga mën def nga ko ñii ñëw nañu ñaar ñii ñëw na ñetti yoon ñii ñëw na ñeenti yoon xam ngeen loolu lu jafe la. ensemble pour la région une contribution de deux cent trente mille huit cent cinquante masques ñi contribuer ñëpp ñëwuñu ñi ci biti ñoo ëpp dama leen ñaan ne leen comprendre leen ma parce que il faut que mesure barrière yi ñu respecte ko. loolu tam ñu jël ko jël bu rafet comprendre ma ne ma d'accord nañ loo wax wax nañ ba ñu dàq mbas mi na mbas mi faw ñu dàq